dama bëggoon wax ne li ñuy njëkk euh, def rek mooy euh, sant suñu borom euh, julli ci yonentam bu tedd bi wax nag ne alhamdulilah ba ñu commencé ko ci campagne bi ba léegi ba ci bisu élection yi ci bismillahi rahmaani rahim te ñu ngi ciy génn itam ci alhamdulilahi rabbil alamin donc nañ santaat yàlla ba lépp daal mu ngi déroulé wu normalement amul problème Euh, nañ ci sant yàlla bi ci des tamit mooy euh, nañ nañ ñaan tamit euh, mbir yi ni mu commencé ci campagne bi ba léegi mu jeexee noonu ci njeextal bi mu nekk ci jàmm nekk ci sérénité ñu bañ am benn problème fii ba ngoon élection yi ñu ne élection yi jaar na normalement te amuñ ci benn problème ñu ngi koy ñaan yàlla te incha yàlla na ko def Euh, beneen bi ci des nag mooy ay élection locale la ñu nekk euh, waaye élection locale dafa nekk ay élection yoo xam ne aussi am na solo am na solo parce que ci lañuy fal ñi nga xamante ne ñooy nekk maire euh, ak ci nekk ci conseil municipaux yi ñu nekk ci département yi te loolu am na solo am solo boobu nag moo tax ma tamit may woo suñu mbokk yëpp ñu génn pour wote ndaxte wote bi dafa am solo wote bi mooy tax ñi nga xam ne dañ leen fal am légitimité donc euh, ba tay ba ci ngone gi dal ku ñu mënu waxtaanal ku ñu mënu sensibiliser ku ñu mënu wo pour mu ñëw wote yaakaar naa ne loolu dina baax te bokk na ci li nga xamante ni mën na defar élection bi bi ci des nag mooy voilà politique la tamit euh, ñu ngi ñaan rek tey tamit nekk euh, bés bu bees pour nag pour que Rufisque nag dugg nag ci beneen étape boo xamante nag dañuy am nag fii nag ci tëngéej tëngéej bu bees